une formation politique bu tuddee la RDS Rassemblement démocratique sénégalais comme je l'ai dit tout à l'heure qui était en alliance lors des élections de 2017 ak Samba Kara Ndiaye bi jiite kuréel bi ñuy wax NADEM alors ñu dugg assemblée d'abord on a bati campagne en partenariat avec la coalition Sopi am député dugg assemblée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 dootul ay 6 mois ki 3 mois de 10 ans le minimum sorti d'une amende ki fait le triple de la valeur de la drogue mbaa dugg na say nopp ngay wër di saaga di sos di fen rek Jamra moo ko criminaliser et on reviendra pas euh, euh, euh, kii kii ñoo criminaliser yamba bi sa yamba criminaliser sa cocaïne bi ngay muqi ba sooy wëlbati sa yoor ba dootoo am benn kersa di saaga sëñ Muntaxa saaga sëñ Babacar Sy Mansour